yar leen ci yarub lislaam bi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci la jaaroon mook saxaaba yi sëriñ bi sanc ko ñoo fekk mbooloo mi nga xam ne ba mu wootee yoonam wii di yoonu murit ñoo ko wuy si woon mu jaar ñoom ci yoonu lislaam yar leen yar ba nga xam ne moom lañ mas di dégg ne yonent bi sallallahu alayhi wa ci la doon yar mbooloo mi wax na ne li tax mu gënal ko ci suuf yi yéena ju la jim ko sance loolu sëñ Basiiru nekk nettal na ko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 woote bi nga xam ne cheikhul xadim radiallahu anhu moom la indi dafa doon woote boo xam ne day dëgg-dëggi lislaam di jëmmal lislaam ci lu nëbbu ak ci lu feeñ loolu yi nag doon loo xam ne moo tax ba dëkk bii di Touba doon dëkk bu am solo doon dëkk bu am wàccuwaay ci biir lislaam lislaam googu nag di fi jëmmu di fi feeñ fii ci dëkk bi ci bërëb yu bari ci ay jàngukaay yu bari waaye rawatina nag ci ay jaamukaay yàlla bi ci gën a fës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 ndax kenn ku ci nekk dala wax na sama kër gi ci tubaa na nga fi tàmbalee di jàng suuratul baqara boo àggee ci ay sangam loolu moo waral ay mètre la ñuy rawaatee waaye ci nja gaawante njàng mi waaye kilomètres yi boo ko takkee benn la. ginnaaw bi nga xam ne sëriñ bi jógee na fi nag di Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasul murid yi dañoo wéyaloon jëf ji nga xam ne moom la leen sëriñ bi digaloon te mooy jëfi lislaam ak tasaare wooteem bi ngir gën a jëmale mbir moomu kanam nag.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 booba métti woon na lool ndax booba diggante ñoor ak Porokhane rek daal di koy dem fa moom moom moom na lool ndax ñax meeg garab yeeg bërëb bi lëndëm na amul yoon amul dara guddi gu mu fa jëkk fanaan mu suñu bisiw fanaan moo xam ne fanaan bu doy waar la eh, waaye lëg li ma wax rek lu baax moom moom njëwleen gi mën naa metti mën naa tuuti waaye nag day mujj nag yaatu ma kenn xam fu mu yem loolu mooy Porokhane ci gàttal bokk na ci dëkk yi mu sañ fu ñuy wax Kër Madiabel Kër Madiabel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 sanc na itam dekk bu ñu wax ballo ji gi def na fa ballo ji euh Kabou gay 1950 50 1950 la ko sos dekk bu ñu wax gay euh amna dekk bu beneen bu ñu wax mbaran mbaran mom itam ci dekk yi sey abdoulat euh sanc la bokk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

waaye référence it ci wàllu développement beneen rakkam it di Cheikh Sidil Muxtaar xam ngeen ne ñu gën koo xam ci maam Cheikh Anta Gaawaan am na ñaari dëkk yoo xam ne tey benn bu ci nekk tey référence la tey mu di Gaawaan giñ koy dàkkental boroom Gaawaan ak Touba ñaari dëkk lañ yoo xam ne ba tey ci yi gën a ràññeeku la Touba xam ngeen ne première marché hebdomadaire bi nga xam ne moo am ci zone Bawal Touba la woon tey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 parce que suñu Mourtalla dafa gëmon li ñuy wax nationalisme dafa gëmon ni nit ki warna mëna amal boppam dara ci bir réewam mën naa amal boppam dara ci bir réewam motax tax loolu mooy li am solo won ci walu xam xam-xam bobu bo sétlo ci buntu école yi boy duggu ndam nga xamni moy mooy almadrasatul um moy école bi nga xamni moy moy école bu mag bi boy duggu nga gis ñu bind ci ayé bo xamni mi wa aiddu lahum mastatatum min quwwatin wa min ribatil khayl turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum aaya boobu yaakaar naa depuis 11 septembre foko jàng ñu bari dañuy daw ndax baatu irhab muy terrorisme tur ci la alxuraan indi foofu ci aaya boobu turhibuuna bi aduwwal aduwwam waaye si murtala ci déggam xool ni mu firee aaya bi moom defu ko ci fa ñuy bombardé de waaye fa ñuy jàngi xam-xam la ko def waaw fa ñuy jàngi xam-xam la ko def wa aiddu lahum na ngeen préparé xale yi masaratu min quwatin lu ngeen am kattan ci ngeen préparé ci ñoom am kattan am doole mën a dem xeexi moom mu jàpp ni kon la sëriñ bi waxoon ni inni ujaahidu bil ulumi wa bit tuqaa ci xam-xam ak ragal yàlla ci laay xeex jëm sëriñ Soxaybu Mbàkke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 ñom ñep dañ ko doyloo won ci jangalé ak yar ñom ñep nak mu liggéey ci liggéey bu réré réré bu xamni tay ji kër go dugg rek ci ci kër doomi sëñ way ko duggee gis fa ab liggéeyam ak ci doomi cheikh ci ak ci yoon yëpp ak ak doom julli ñëpp sax ndax daara ji moom ñëpp la ñëpp la ñëpp la sëñ doon jàngal ku bay ko indi sa doom rek mu jàngal ko yar ko tayal tax kon loolu am mënoon ab liggéeyam mu def ko diir bu yàgg nag ndax da cee teel dugg ndax yaakaar naa wax nañ ne 1948 wala 49 waaye yaakaar naa 48 moo gën a lëng maanaam daal moo gën a wér lañ wax ci la tàmbali jàngal alxuraan jàngale alxuraan ba koy man mu ko ko taqal boppam di ko di ko defal di ko defal boppam nga xam ne.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 loolu ci ndigal suñ Tuubaa lu ko defee la ko fa yóbbu itam mooy li yóbbu mbooleem kilifa yu murid yi te dëkk yi ñu ne mooy jaamu yàlla liggéey yar njaboot ga ñu am ba mu fa nekkee itam ci ak farloom ci la sancaate yeneen dëkk yi ñu ko waxee sànq mel ne dëkk bi ñuy wax Taysiir dëkk bi ñuy wax Mbàkke yi te yëpp itam ak njabootam nekk fa la mu fa naaloon ba tey jii njaboot ga fa ne ña ca loola mooy nekk ci lu baax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 ma samba sañcoon na fa ak bërepp yu bari sax yo xamne ne limé yu bari lay doon. digënté Cheikh isa Diène ak Xaadimu Rasuul radiyallaahu ta'ala an fu ngeen mas a gis mu sanc fa suufit liggéel fa Serigne Touba ko fa yobbu way du liggéel bopam bu mu jógee mbour kadior la tambalé té kadior yaakaar lu ci bari ci région kess la di dem ba ñew mbour ci ci yes di dem ba ngeen ngi neew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 xam yoonu murid et boo xam ne it liggéey nañ fa liggéey bu rëy ndax dafa nekkan foo xam ne mooy fief bi nga xam ne suñ bokki catholique yi muy missionnaire catholique yi foofa lañ kéen parce que dafay bu isolé wu woon boo xam ne maanaa l'islam dafa yéex a àgg bañ doon profité muy lit muy promesse muy euh, li ñuy wax petite côte mooy ci côté Mbour waaye njabootu Xaadimu Rasuul teg nañ fa sëñ ma sëñ Mouhamadou Nobé Xabaan mooy ka nga xam ne euh, mo fa ñëk installé ci ku ñu xam ci cheikh cheikh khadim yi sanc fa dëkk bu ñu xaban ba tey boo déggee ñu na sëriñ Modou xaban sëriñ momad Numbe xaban ci dëkk yoyu lañ leen di dakental mu nekk ci provinceu eh, mbour ñen ci njabootug seexul khadim gi topat nañu ay jaar-jaaram ci mboolem dëkk yi nga xamne ne bi jaaroon na fa lolu nak dañ ko def ngir jëfé ndigalam mom sëriñ bi ndax mo leen ko digaloon am ci ño xamne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 ma ngi ciy wax naan déglul ma wax la la waral tukkeem ba kon nga siyaare ko ba am ca yool ba Cheikh Ibrahima Mbacke ne ca weeru koor wala bam ba ñëw ca moom digal ko yoon wa wax ne gis na ko Mbacke gis ko fi Ndakaaru dolli ko gis ba dollee waaru mu naa ko suñu waree demal ma Congo ngir mottalil ma ati suñ Moussa moom Cheikh Ibrahima la wax kon suñu Ibrahima ko nettali ko ko noonu ci loolu itam yàlla defal ko tawféex yi bi ñu waree ba am fukki fan ak juróom-ñaar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 kuy liggéeyal doomi jaara boo ko joxee àllub jaara xol ba sedd fa la jëkka tàmbalee nag mu bokk ci lu muy développé développement boo xam te ni adduna bépp ci jariñu dafa béy mbéyum nawet muy muy culture hivernage dafa béy mbéyum noor muy marichage ba jamono booba pomme de terre ba maam Cheikh Ibrahima Fall daan béy ca tasineer gànjool ak lu jum jëm fa daan béy yëpp muy pomme de terre muy tomate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

mën naa man mën naa teral lu bari ci askanu Sénégal te booba Sénégal bëri wuñu mbooloo population bi demewul nii waaye nag lum bu dee dugub nag na maam ci Iram Fall doon liggéey la ak njabootam di di liggéeye dugub moom bu ko béyee ba mu yegg noonu lay jëlee la ñu dugub teg ko ci loxol borom Touba Xaadimu Rasul pepp ma